asalaamaaleykum euh, mbokk internet yu Guédiawaye info tey ñi ngi fi nga xamante ni mooy Bagdad si terrain Guney tey euh, pour euh, demi-finale bi nga xamante ni mu nga war a opposé Guney tey ak dex gi daal di ñëw pour xool préparation ñi nga seen diggante ak ASC dex gi ndam dex gi dóoroon na leen mu doon match boo xam ne match bu difficile lay doon parce que dex gi c'est la première fois muy ñëw en demi-finale donc loolu moo ñu andi tey fi nga xamante ni mooy Bagdad pour jéem a xool Guney tey nañ lay waajalee dex gi si kanam tuuti deen Euh, président bi euh, da jël aussi euh, quelques supporters je pense que loolu moñ fi andi pour xol préparatif bu ASC e Guney tay nga xamni mom mën na ne yàgg na am tàkkusaan yu melni tay dal yakarna yaakaar moñ fi andi. ak coach Mame Mbaye mu nekk coach nga am tane moy mooy ASC e tay donc coach nga jëm ci match bu am important mën na ni contre dex gi équipe bu am tane ne gagné woon na la deuxième match deuxième journée donc tay ñu jëm ci match bobu nga wara jouer jeudi inshallah allah nga ko waajale wa ni mako ko dal moy mooy entraîner bon ci dal nak ndax ñom bi may gagné wa mais man fekkuma fi ñoom bi ñuy gagné Guney tey bon man fekkuma fi mais bi ma ñëwee dama ni woon euh, équipe bi gëm naa ni waa boo mais war na mën a qualifier yàlla suturaal ñu qualifier mais dama ni joueurs yi li ñu joué contre bokk jom waaw xajul ci gune tey ñooy ci ñële ñoom xajul ci ñoom nee naa leen daal euh, comme ñun du ñu tàmm boo man dama tàmm final te su ma ñëwee ba demi final daal waaw mais pour ma ñàkk waa mais bëriwul entraînement yi daal ni ñu ko jëlee mooy au sérieux nag waa mais respecté leen nag ndax ñoom noonu gagné woon ba pare ñoom ñoo jël premier ci poule bi mais man mënu ma leen ragal mënu ma yor lii mais di ragal beneen équipe waaw loolu man moom mënul nekk moom man ma mbay képp ku ma xam xam ni mënu ma yor équipe ba pare waaw mais di ragal keneen ñoom nag mérité nañ seen génn ndax ñoom ñoo jël premier ba pare gagné woon mais dama ni équipe bii daal ma yor noo moo ëpp doole gunóor tey waaw mais ba leneen nag di am quoi. waaw ah, c'est vrai comme ni nga ko waxee moo ëpp doole gunóor tey mais gis nañ ni aussi.

bon ci bon ci confiance mooy dama am euh, confiance moom samay jour bon man loolu la leen wax dama ni équipe bi ma yor moo ëpp doole ñële moo ëpp doole dex man loolu la jour toujours man loolu la leen di gëmloo quoi que vraiment équipe bi ñun ñu yor ñoom yoruñu ko yoruñu ko te ñun bokku jom mais ñun lan gagné non bokul def gi dafa gagné bon dafa gagné quart de finale waaw mais difficilement difficilement tir au but mais moom la gagné man 3-0 la gagné bokku jom mais néna jour yi nag mais buñ nako non nan faté bokku jom ñu sul bokku jom

Euh, justement ma revenir ci yenn aspect rek parce que coach gis nañ ni Guinée tey ren euh, compétition bi dafa connaître ay difficulté waaw abordé wul compétition bi avec la manière am na quelques difficultés ba tey mën naa ne match contre Bokk Jom la ñu gis match boo xam te ne c'est un peu acceptable du point de vue collectif équipe bi amoon na ay problème loolu nan nga def ba jéem a liggéey ci loolu aussi non waxtaan rek ak confiance man bi mu ñëwee dama leen équipe bi am na benn défaite mooy dex gi moo leen gagné mais groupe bi ma gis mooy équipe waa mais warul toogee premier tour bon ci loolu laa ñi ko waxtaan ak jour mais gëm loolu leen seen bopp ne leen bu ngeen gëmee seen bopp mooy équipe bi war na génn poule bi moom non war ngeen génn équipe bi dafa war a génn loolu mooy confiance bi quoi mooy motiver leen ni leen man gëm naa ne équipe waa mais war na génn da ngeen def nag faux pas mais yooyu day am ndax yéen ñaari équipe yi gën a faible sax mais ngeen xaw a dajal ndax euh, njaboot gi ak euh, mbooloo si je ne me trompe pas mais ñoom noo gën a di mais ngeen def faux pas man leen loolu nag day am supporter yi ñëpp découragé mais su ngeen gañee euh, njaboot gi mooy équipe bi waa boobu mais day génn moo quart de bi ñu gañee njaboot gi man leen léegi fàtte leen léegi njaboot bi ñu suul ko continuer toujours ci préparation fàtte leen match bi ñu jàll mbooloo moo nekk suñu kanam mais équipe bi day génn ñu gañe mbooloo loolu mooy gëm-gëm bi quoi motiver leen ñu ñëw ñu ni bokk jom am man leen suñu grande équipe mais nan leen fàtte suñu deux matchs yi man kenn ma suma gañe quart loolu laa leen njëkk wax quart de finale man Mbaye ak étant joueur étant entraîneur kenn ma suma gañe quart de finale quart de finale yi ma joué quoi mais dama ko gañe loolu yàlla dimbali ñu suturaal ñu ñu gagné mais nag ñun respecté nañ leen trop mais match bi daal ni ma ko gisee daal ak état forme jour yi daal daal mais ñun yàlla mën nañu ci may ndam quoi. ok kon su léegi le mot de fin ak lan ngay lancer à tra à l'endroit des supporters. supporters yi daal li ma leen di wax mooy ñu ñëw ñu dal euh, ñu ñëw supporter seen équipe bañ a xeex bañ a xuloo yàlla may leen ndam mais ñu bañ a xeex ñu bañ xuloo. man toujours loolu laa équipe bi ma jaar yépp dama nan dal nan éviter euh, ki violence xeex ak yo dal daal nee bon centre ne règle pas le problème même sama dirigeant dama len di wax loolu bu nu xuloo bu nu xeex sax ku yàlla may ndam dal ñu xam yow la quoi mais man xeex ak xulo ci équipe quoi. ok merci coach ñu ngi lay ak euh, Sori Diaw nekk le capitaine de l'ASC Guney tey donc capitaine ñu gis dajoon ngeen ak dex gi deuxième journée bu daa gagner. di gagné jouer war ak moom euh, demi-finale jeudi prochain tey psychologiquement ban état d'esprit ngeen toll. waaw ñu koy préparé match yi comme ni ñu préparé ren match yi malgré tase woon nañ premier kii deuxième journée mu dóor ñu 1-0 quoi mais match bi ñu ngi koy préparer sereinement quoi. waaw mais ba léegi ci wàllu préparation mun naa xam tamit liggéey fan ngeen ko ak accentuer. waaw liggéey bi moom travail bi maanaam sérieux na quoi depuis semaine passée yëpp ñu ngi liggéey quoi ñu ngi ànd ak détermination engagement quoi di waajal match bu baax a baax parce que lii demi-finale la demi-finale bokkut ak match de poule waaw c'est vrai ba tey aussi ñu gis ni adversaire bi nekk na koo xam te ne musul ci stade bi ci fu toll nii ci compétition bi donc loolu tamit doon na benn motivation supplémentaire boo xam te ñoom da animé dina jaral lu ne pour accéder à la finale est-ce ngi bàyyi xel aussi ci loolu conscient ngeen ci loolu waaw waaw ñu ngi bàyyi xel ci loolu bu baax baax parce adversaire bu ñu am musul egg demi finale quoi mais moom lépp lu mu bëgg match bi ñun ñoo ko gën a bëgg quoi parce ko a bëgg waaw ah, c' est vrai mais boo waxee njam ngeen final lu muy saf est loolu tamit du andi benn genre naagu comme Guney tey équipe mag la yàgg na am takkusaan yu mel nii seen diggante ak dex gi. waaw ah, non non du question sax du question naagu parce que football moo demee noonu actuellement nii ñun ñooy l'équipe à battre parce dex bi fi nekk nii ñoom atteindre seen objectif parce que mosuñu egg demi final quoi ñun tey jii ñun ñooy l'équipe à battre ñoom bu ñu dóoree rek ñoom si c'est si ñoom waaw ah, c' est vrai mais cap gis nañu violence bi dafa bëri fii quoi au niveau du mouvement navétane Guédiawaye particulièrement zone 4 gis nañu barki démboo Ndiaye diggante Disso ak Djibo kon tey ban message ngay lancé donc à l' endroit des supporters pour jëm leen sensibiliser ci bis bi ñu jëm waaw maa ngi leen di sensibiliser supporters yi football moom vraiment am àndul ak violence quoi football day boole nit te xam nga ñu xam ne ndam li bu ñu ko amee jógewul géejawaay quoi population géejawaay ñoo ko gagné quoi vraiment ci appel boobu laay lancé quoi nañu ànd ak discipline yar yar ak teggin quoi parce que football ànd ak violence quoi. waaw Kapi ñu ngi lay sant di la gërëm kon. merci waaw ba tey ñu ngi ak président ASC Guney tey euh, ñu koy woowee Moustapha Sarr donc président ngeen jëm ci bis bu am solo seen diggante ak dex gi mu gagné woon leen deuxième journée donc jeudi ngeen war a ak moom demi-finale donc ben état d'esprit ngeen toll ak nan ngeen waajalee bis boobu. waa alhamdulilah ñu ngi lay ziar bu baax si laaj bi. di wax ne euh, si compétition lañ nekkoon ñu joué premier match moom mu gagné woon ñu mais ñi fooyee douze millions xam nañ benn affaire ah nee nañ sexal benn rey ñaar am na kon ñu mën nañoo sexal benn rey ñaar mais di wax ne match bi ci ñëpp noo xam ne war nañ ko ko préparé préparé nañ ko motivation bi mot na booy yi kontaan nañ te incha allahu rabi nañ xam ne ki liggéey ba raw la yow mun a wax ba dab ko ñu ñoo si ci liggéey bu wér a wér waaw ba tey ci kaw loolu ak président ñoom fa lañ jugee nii sànq mais dañ ni ñoom dóor dóoraat neen fi leen jugaloon daal ba léegi génne wuñ leen fa dóor dóoraat daal ñoom loolu lañ gëm te loolu lañ appliqué jeudi incha allah loo ci wax ba da nga ma ko laaj am naa droit wax beneen question xam nga muy lan nee nañ mosoo dégg asamaan si taw na taw na ndox mi bëri na bañ na rondali sax na ndox sax na ñax mosoo koo dégg ñu ne ndox mi bëri na bëri na ba rondali am na ñax mosoo koo dégg kon ñoom sëgëm ci wax lañ féetee nañ wax rek mais ñun liggéey nañ te sànq rek dama ne la kii liggéey ba raw la yow munoo wax ba dab ko ñoom nee nañ dañ ñu dóor dóoraat ñun ñu ne leen douze pions la sexal benn rey ñaar am na te fii lay gën a méttee mhm. di ci xam dara yéen ñëpp maa leen invité incha allahu rabbi incha allah mais ba léegi rek ñu xool ni tey ren gu ne tey compétition bi abordé ko avec la manière cest à am ay difficultés tout au de la compétition ba mas gu naan contre bokk jom sax lañ xaw def mas boo xam te mas bu acceptable lan mooy expliquer loolu waaw xam nga affaire bi nekkul benn match gañ jël compétition la la am nga yoo xam da nga ko war yi mënoo ñëw peut-être am lépp victoire mënoo ñëw am lépp défaite yaa ngi dégg am na neen noo xam ne commencé nañ ko ci nawet mais xam nga li gars yi di wax l'appétit vient en mangeant ñu demee ba cours de xam nañu équipe bi changé na parce que commencement xëy na yenn difficulté yu ñu amoon amatuñ ko woon yaa ngi dégg peut-être yi amuñu woon temps d'entraînement seen biir mais dem nañ ba nga xam ne lépp ñëw na te ba lépp ñëwee wax dëgg fa yàlla xam nañ ne kuy door a mën kuy saaga. waaw juste foofu rek mu ubbi benn parenthèse tey concernant ni changement course am na ci diggante bi lan rek dans le cadre de bien faire ñun ci lépp lu ñu bëgg rek mooy fexe mbir mi gën a neex mbir mi gën a nice amoon nañ fi ay coach xëy na dem nañ ba si biir ñun attente yi nga xam ne parce que ASC Gone tey ku leen xam xam leen ci rigueur xam leen ci liggéey ci lépp loo xam ne waxtaan nañ ko ak yow dañuy bëgg loolu noonu am yàlla def na nag en cours xëy na mënatuñu woon juboo ci ay principe ñun niñ bëggee ak ñoom peut-être nit ñuy defee xëy na moom moo wute woon far nag ñu indi keneen ba résultat yi feeñ na quoi alhamdulilah rabil alamin oui bien effectivement kon su léegi du point de vue de la mobilisation tey nan ngeen di waajalee bis bi nga xam te ne ginnaaw suba la incha allah. waaw moom am na képp ku dégg ASC Gone tey wala ku xam ASC Gone tey xam na supporter yee tax ñun kenn ëpp ñu mbooloo te incha allahu bi képp ku ñëw terrain di nga xam ne ASC Gone tey ñëw na en masse ASC Gone tey ñëw na ak doole ñëw nañ pare pour defar bis bi te incha allah supporter yëpp dinañ ñëw dans la non violence. soxla wuñ ci xeex soxla wuñ ci xuloo incha allah leen rek moom moo tax a ñëw gañe ñibbi. préparer suñu procès mass muy final bi wa batay ñu gis ni tamit euh, récemment violence bi bari na fi nga xamante ne mooy nawetaan na zone 4 barki démboo Ndiaye gis na ñi djibo ak diisoo tay yow ban message ngay lancé supporter pour jëm len sensibiliser ci bis nga xamanteni mom moom lañ jëm waaw c'est que gaay il faut ñu xam ben affaire quoi li ni c'est une compétition compétition que le meilleur gagne pour lolu kase la wuñ ci xex soxla wuñ ci xulo parce que sport dafa war di bolé mbolo mi sport dafa war di bolé ay doomu adama mais sport walul xajalé bu démé demee indi xajalé ak violence si biir sport pour man jaratu ko lenn moom moo ñu tax a jóg sport rek mo am nga sol maillot mu ñak nga simi ko jox kenen mu sol ko mu ñak mu football loolu képp ko bokkalul ben loolu mënul nek tay man sama sama sama sama ben benn maillot sama soloon benn yére mu ñak ma may ko kenen du ko bëgg sol ndax ñak bi mais bu fekkee ci sport mun nga ko sol mu toy nga yëkëti ko jox kenen mu dal di koy sol kon ça veut dire que loolu dañoo wara a woo wone bennoo bokkoo doon benn ñi dal di jubo kon ñu xamné ne sport li ko tax a dans son objectif premier c'est ñu boole ñëpp daal di leen boole si juboo ci bennoo ci nekk benn mais pas ay violence ñun waa ASC Ngoné tey woote wuñ loolu jàmmoo daal la ñuy woote si ñëpp. waaw kon si ñu ngi lay gërëm kon di ñu lay sant président bu baax kon di la di la gërëm di la sant. waaw yéen tam ñu ngi rafetlu seen ok merci. waaw Bécaye li ñu fi mën a retenir rek mooy ASC Ngoné tey pare na parce que buñ discours yëpp ñu fi dégg li ñu ci mën a retenir rek mooy am na engagement am na détermination te seen diggante ak ASC Dex gi comme gis nañ gagné na leen deuxième journée liñ gis mooy ASC Dex gi doon na équipe boo xam te ñoom ñoo gën a habitué à ce de la compétition donc pare pour jeudi te jeudi incha allah ñoo confirmer ni match bi donc rëq-rëq la woon seen diggante ak ASC Dex gi même course loolu la wax yaakaar naa ne kon li fi am rek mooy xaar jeudi incha allah diggante ASC Gounaté ak Dex gi mu doon demi-finale boo xam te